hello guys ñëwaat naa si jaay mi ñu warga xaale you know ñu warga ta jaay warga ta jaay so guys xamal naa leen beneen beauty tip bës leen te seddoo rek mu ñëw indi leen beauty tip ma leen xamal xam naa beneen beauty tip ak beneen sekkari jigéen plus góor you know bu ma leen di waxal tàppate leen te séddoo ma jekkale sama suma bluetooth bi de moo doxut xam nga tax suma bluetooth bi doxut ay gore na mooy ne duma mën a déglu musique la am nga suma warga waa ngi ne fi ne baxal naa ko am ñor nag décembre bi laa fa ñoroo mel ni pëlëm wér xaw war nga woon neex walla bu ngeen jëndaale pasti bu ngeen di jënd xaftaan ngeen jëndaale pasti jënd kurus yéen gune góor yi du julli jënd leen kurus jënd xaftaan ci julli gi jënd paquet pasti waaw wax naa leen ko nag kurus yu baax te rafet lay jaay kurus yaa ngi ni la gi ngeen buusa kurus gii woy mu tàkk musique baa ngay tàkk rajo ba subhanallah rajo baa ngay tàkk gi ngeen buus ak kurus gii bës leen ko te séddoo ko may jaay de nit ñi bañ soxot te sibbutu mooy problème bi soxot te sibbutu bi nit ñi de waaye ni konoon kay man danaa jaay li may jaay yëpp bu nit ñi soxotutoon te sibbutu bañ bës ko te séddoo fi ne mbuus ak gaa ngi nii kurus yii mooy kurus yi nga xam ne jigéen mën na koo wér daal you yu melax yii gisoo ko yii jigéen mën na ko wér daal surtout waaye góor yii moo gën a nekk kurus si góor daal maanaam yii ñaar yu melax yii ah ba tey góor mën na koo wér daal waaye fa fa xam melax melax ñaar yii waaye yii yii kurus góor dëgg la kurus fukki pound rek nga xame ko di tudd yàlla waaw sol sa xaftaan di wirda julli ji góor fay julli di wirda waaye góor gu du julli du wirda ñeme bàkkaat ñeme njaaloo ta bon ta mën a fen ta bon xaw góor googu ennemi boppam la walla te jigéen jum takk yërëm naa ko du ko mën a dimbale jàngal ko yàlla ndax moom ci boppam fa bon waxuma góori naa feq yi mbubboo yàllay toroxal jigéen de ñooñu taxuñ may wax di julli te soxot te mën a fen <laughs> te bàjjoto caga <laughs> ñooñu taxoon may wax góor ñi def seen bopp nit laa wax bés leen te séddoo rek góor ñu góor ñu bon ñëwee seetaan duñ bés duñ ak jigéen ñu naa fekk yi te seen bopp ñoo may seetaan ni nii góor ñu bon ñi ak jigéen ñu naa fekk ñi te bañ seen bopp wala lan bës leen te séddoo ma jaay jënd leen kurus jigéen joo xam ne fa xam nga kurus fu toogee defu dara di wér da fukki pound rek tudd yàlla laa ilaha illallah laa ilaha illallah wala astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wala laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min as-salimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min as-salimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min as-salimin wala mu ne sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam kii lu mu bind nii tukk leen waaw bës leen te séddoo rek gis nga ko fukki pound yii yëpp yu melax yu rafet yi la jigéen xame ko di weer da yii yu melax yi la yii it faam melax melax gis ko rafet ba bugga dee yii yii it ko jënd leen ci kurus yi te wér da du ngeen bës te séddoo looy bind looy bind nii ami yoo xawma lan dangay dak dakaay dagaaw dagaay xoole rek peru ko xamal looy xamal xawma lu muy wax moo tax ma di ko ci foto ku dem lu bon lay wax xàmme naa ko ku ku bon la te bañ ma bës leen te seedoore gaay <laughs> yéen su ngeen jënd keneen dana jënd <laughs> tàppate leen ko séddoo kurus fukki pound fukki pound ten pound kurus ten pound kurus guys where is all the muslim people ten pound and you're gonna call Allah's name call on Allah call on sallallahu alayhi wa call on on the good names in the world you're gonna call on Allah's name call on sallallahu alayhi wa name call on all the good things in the world when you have this cruise guys okay just 10 pound and you're gonna be close to Allah pray to Allah get your life all together you know just good Muslim for 10 pound look at this guys <laughs> good Muslim 10 pound for you to be a good Muslim these are the, ones that I recommend for men and this one too women can use I reckon this one's for, women yow pos leen te séddoo nga amil amilaat xoolal rek nit ñi ni xañaanee te soxor rek may jaay ay kurus di jaay sama bagage ñu mel ni ay niw yuñ jaale ne teg fi ne maa ngi ñëw pour waxal leen ay beauty secret ak ay secret yu ngeen di use diwi koke waa du leen ko waa gannaaw ngeen a soxor ta bon ta xañaan ta bon ta tayal ta bon ah leen nii rek am yaan yaa neex tukkul nga naan la yow bësoo séddoo naan ma am yaa neex yow nga maa mos ba xam suma neexaay yéen bës leen te séddoo may jaay ne nii balaa timis bu timisee jant yi fay dugg te kenn doo mën a gis xaw bàjjo ngeen tab bon wala ngeen mel ni ay ngaana yu si butu fi ne nii jërëjëf xolo ki may may noonu sax moom ku baax la jërëjëf yow de yal na la yàlla may yow ah, yow de yow rek a baax ci live bi ah ci def niñ may def bi fukki pound rek jigéen yi nga xame ko muy melax yi noonu day wér rek muy melax fa mel ni ay péri or déedéet comme péri euh, living diamond ah, ami baa yaa ngi jaay maa ngi jaay kay xay yu soxot yi may seetaan mooy problème bi fa xam suma noonu yu bari yu may yundu waaye maa ngi jaay ka fukki pound yii yow mbaa yaa ngi ba saxañaan gi ak sa soxot gi ak sa mbon gi yow yow ma yaa ngi jaay di ñaaw lante te doo jënd <laughs> gi ngeen <laughs> mën a jaay la ma nit <laughs> ko yii fukki pound bës leen te séddoo rek ku jënduti su bësee rek keneen dana jënd waaye nit ñu soxot ñi te mën a defante te confis dox te di ma seetaan mooy problème bi waaw waaye ni ko noonu kay man danaa jaay yow boo jënduti te des sa bopp nii rek te bës séddoo keneen dana ko gi jënd gi ngeen yi fukki pound rek xale xale kurus yu ni rafetee rek kurus yu rafet yi xool leen lii rek ah, leen kurus yi ni rafetee rek te baax rek am yaa bëgg xaalis <laughs> man kay bëgguma xaali man may ñëw fii di wax si biir askan wi ba jaay nga naan lu kii di bind ma lan comme lan ko am na xaw lan tuuti koor mel ni koor bës leen te séedoore jërë ngeen jëf tàppate leen te séedoore su ngeen jënd keneen dana jënd kurus yi gis ngeen ko ah kurus yi góor kurus yi jigéen fukki pound rek soo jënd sa xaftaan nga jëndaale kurus soo jënd sa garaam bu nga jëndaale kurus soo jënd mu bi julli bul fàtte kurus gi ak fuddën si fuddën xam na pour jigéen pastiwal daa xam na pour góor ñi surtout góor ñi bëgg warga pastiwal daa yépp rek ah? saabu bu ñuul may sangoo saabu mali bi xam na moo ne nii yëpp rek boo jënd xaftaanam neen wala mbubbam neen ngay jëndaale yii wala boo jënd mbubb sax nga jënd ci yii waa kurus fuddën sungu fi lifin sungu fi mbuumam nebedaay fres sungufi laalo guy fres café touba fres mbor mbor tenkiliba fres <laughs> basaab bu xonq fres <laughs> boo jëndul yére yi xam naa yi nga soxla yëpp xanaa nga soxota bon ah jaaro yi yëpp rek feres fana luy fana tukkul nga naa fana ami kii feeru xawma lan diggu nga wari jaay xawma feri ndigg yow nga cagata kon fii sam lan fer xam naa ko waaye du ma koy jaale buri sam koy rusa jaay bu ma gis may wànni nga fa ne du may looy xawma lan lu wóolu fu xawma lan lii wolofu fan la xam yaa koy yëg boo ko xamul bës leen te séddoo ngir yàlla rek ku jëndutit man na bës te séddoo rek seetaan maak nit ñi man bu ngeen bësee te rek te seetaan maak golo yu lakk yi may fitnaa man naa xa defanteeg ñoom faale xuma leen waaw yéen leen te séddoo rek te seetaan golo yu lakk yii ñu mel ni ku tëbee ci daay daay ga waroon leen a lakk ñu far tëb rëcci mooy problème bi daay gi rëccee waaye ba ma ñoom rek <laughs> ma ne naa ak ñoom <laughs> ku rëcc si daay fii nga may fekk nag <laughs> xam ne maa la gën a njëkk a rëcc sa daay ga bu yàgg bu may rëcc sa daay ga juddóogoo bés leen te seedu axaleen ah, kurus yu baax yi rek la ilaha la laa ilaha illallah xaarama yow musóoru sax kurus yi ku ci jënd di tudd yàlla di tudd suñ sang bi wërsëg fanu gudd wér gu ak nga gën a jege yàlla very good kurus yi baleen font suma fayda laane kurus yi jënd leen ko nu kii di waa muurul <laughs> yow suma muuroo ngay jënd doo ba naa feq waaw maa ngi ni takk suma musóor yi moo takkee it golo gu lakk ci daay gu jënd ku bëggut a jënd suma musóoroo it du jënd danaa ko takk sama musóor bi ah boo jëndut tey nga dee wala te rekk ngay dee bu jëndut yow mi may naan musóoru waa ne musóoru na waa ne jëndal kurus kurus ten pound gaaw jënd fi ne mbaa nga dee <laughs> jant bi day mooy waaja so kenn doo mën a gis fay fende yow yaa wax dëgg baara la sweetheart man ngay wax loolu li di mën a ñaawlante te confis dof baara golo go lakk goo ko ko soxla di dindi xawmalan perruque bi yow luy sa yoon ci perruque bi moo ko dindee yow doo jënd yow bala nga maa defal lii defal laa yow tukkul su ma jëkkat nga su ma yaay nga am lan banaan ma di ma wax ni may nokkee ma ne xilifaate ne Macky Sall mu sibbutu yéen du ngeen jënd ndax ngeen defoo di taltali wax te jëndu leen defu leen dara maa ko de sax man mi musóoru ngir yéen duma leen waxal li ma leen wax ci coconut oil bi ngeen toog seen gémmiñ xesew jigéen ju ngeen jege mu daw surtout góor ñi amee gémmiñ gu ta bon jigéen ju ngeen jege mu daw moo tax it du ngeen fóon kenn li ngeen di tilim ta xesew ma di leen waxal si ni ngeen di def ngeen di dof dool waa aca <laughs> tey rek ngeen di deekoon <laughs> duma leen waxal ni ngeen di def ci coconut oil bi ba seen gémmiñ gu xesew gi def boppam nit moo tax kenn du leen fóon li ngeen di tilim ta dof man nga bëri nga hystéristique xaw ma <laughs> danga maa xaw ma lan dama la takk xaw ma tukkul bës leen te séddoo su ngeen bësee séddoo rek man danaa jaay li ngeen soxot mooy problème bi barki salaatu faatiya <laughs> waaye su ngeen bësee séddoo bu ngeen jënd sa keneen dana jënd Moodu di këtt ne di yónnee golom yi Moodu yow mel ni golo sa bopp sa nataal boobu nga ni golo gu réer ci xalaatuma ko bu ko jëndee fii waaw dem ca jaaykat ya di leen yalwaan ma leen di jox xaalis ñu jaay ma. ma man suma kaasa warga bi léeg-léeg fa toj xam naa aadee ko toj ba ko doon raxas aadi boo ko santee raxas kaas tey yàkkamte de ak a mer képp képp toj mu sànni <laughs> aw dem <laughs> war ki yàlla aadi su magee njëkk liggéey bu mu njëkk a xam fu ma koy jëndalee bagage yi mu toj xat yi yëpp fay ma ko yow luy ca yoon si fi ma ne sa yoon newu ci fi jëndal rek danaa la ko yónnee boo neexee ba xàllaaxira sax man ma puus la sa bagage waa fu ma manti ne yow loolu sa yoon newu si li jëntil yow sa bagage yi noo ci jotee rek yow jëndal rek waaw waa ràng naan ma foone ak nii naa ak kii ki ak nangam déedéet jëndal rek waaw yow fi mu ne nii àllaaxira sax boo fa neexee ko malaaka yi yut la ko fekk la àllaaxira nga ne noonu sa bagage fekk la <coughs> when are going back to luy PR ami xamalan may ma may maama xamalan paat wéeru leen te mënu leen a bind ami alaaxira xamalan alaaxira waaw ku ne alaaxira sax bu jëndee ma jaay ma yët ko ko jox ko posté ko malaaka yët ko ko warga nee na waaye saful sukar sukar si may moytu nii lii de du jaam gu we xat may ma ataaya mukk ataaya bi la ko may doo ko mën naan yaa ngi foofu amee dugal ma waay lu ma lay dugalee kii comme da Ibrahima yow Ibrahima doo ba saabu ma ñëwee nga ni ngay dugg yow wér na man kaka yi nag maam leen ci man nijaay suma yaay leen kaka yi ne Gàmbi noonu te foog naa ñoom Sénégal lañ jógee sax <clears throat> yow looy wut du ma la jël doo jël nekk di ma fitna why are you telling us we are not well wéru leen nga naan lan ñu wéra di ñu laa wax yow ngaa bokk ci yow ngaa wéru tam lan ñu wéra di ñu ma seetaan laa wax loolu lu mu bokk ak ma la nee wéroo yi te yow xam nga ne wét nga kay nga xam ne ngaa wét soo wétee mooy ne yaa ngi def yëfi nit mooy ne yaa ngi dugg si vidéo bi di bës di séddoo di support xanaa TikTok ñu ngi leen nit ñi boo jënduti <laughs> nga ba séddoo support vidéo bi mooy wér nga boo ko deful mooy ne ngaa soxot ak kon pis dof loolu nu mu doyee wét man ngaa soxot ak kon dof ba tax ngay jël suma énergie bi di ko yuur di bégal sa bopp di ma xool di ma xas wala di ma xool di ree because comedy wala jos di ma xool di bëgga sa bopp te xañaana bés di use suma énergie di ma use ni dem bu gis ndawal loolu mooy ne ngaa soxot kon fis dof dugal ma dugaluma la yow looy wut giif xaw ma lan kon yaa koy xaw ma loo bind dugaluma la xaw foo ba xamul suukar ki ma doon woppi naa musóoru mu musóoru te jëndu si kurus yi waane te naa feq daana musóorul mais ni ab jullit bu faale yàlla du li laay wax ci yéen <laughs> I am coming to join you not joining I want to come green tea no I want some green tea sorry you can't have it because you're far huh which face cream are using ay applying gis nga ko duñ bës duñ séddoo pare naan man mu wax leen diw gu may diwoo soxotte yuusa bul ma xas tukkul give charity no balaabe balaabe xamali loolu ndaw warga wu weex suukaruma ko <laughs> suukar laay wàññi ma ne pour suma yaram wàññee ko xaw suukar boo ko miinee <laughs> doo koy mën a ba mu ngi weqat benn kuddug suukar laa si def xaw ñu mel ni suukar yuñ ko hmm. comme kuy naan xasam xay fàtte ngeen xasam xay Afrique fuy métis ma yuur gi too much of sugar not good I know that's why I'm trying to not use it but ah. I don't like attire with no sugar I don't normally put too much but this, is just too little balaa bi la page man duma mën a xam seen bindi français am ah, li fi nii su ngeen ko bindee français xolof duma koy mën a de balaa bi laa balaa bi laa laa loolu baj la wala bañ luy balaa bi bulu bi bulu ngay wax wala lan balaa bi xaw ma daal li nga I like it that léegi lu ma leen bëggoon na woon si mbiri lii duma ko def parce que ngeen a soxot bësu leen seddoowu leen li ma indi nii pour won leen beauty hack ak ak ak ak secret bi ngay def si lii su góor surtout góor gu am gémmiñ gu xesew ba mel ni kama bu nëb te kenn du ko foon nu muy def ba gémmiñam ko def gémmiñam nit waaye du ma leen ko wax <clears throat> gannaaw ngeen a tayal te soxot te bon te xañaan te soxot ni max di diggu xam ngeen max ak diggu mooy saxi bàmmeel yooyu lii lum do moodu gi nga yow ngaa reeb soo fi dikkatee di yónnee ay bopp yi ñaawlante ay yónnee ay golo ka def danañ la suuli suma ma turu baay bi nga xam ne mooy problème bi jëluma la yéen ñii ñëpp jëluma leen góor góor ak ak ak koog yëpp jëluma leen kookum la waa sis yow bind ma dinaa la jox sama numéro maa bugg a dem sax du ma yàgg maa bugg ma doon defar lii soo ma ne ma ñëw wanaale leen ko xam nga lu ma dee defar rek lu baax lu si bëri ma leen koy wanaale ya billaay ami yaa soof man nga ne maa soof kon yow focusal si sa nangam taan bi ko defee doo gisati suma suma suma soofaay sa tur woowu focus nooy xamee tur woowu te wéroo ngaa war a fuu ko sa nangamtaani fuu te bulog ma bulog sama juróom-ñaari maam waaye di focus ci ko soof dugg si moom si vidéo di ko di ko wane fa soof kon yow wéroo kom saalum saalum xaas kay xasum kay waa xam ngeen xasum kay xasam xarit dégg naa fa baax ami yow sama xarit nga man kay duma sa sa turu naa fekkoo focus te doo focus konoon doo ami dugal ma xalaatuma ko what do you have this evening I already had dinner I had this, um, the beef that I made it into um, I don't know like a soup slash or slash whatever <clears throat> I'm not taking these people I don't know who they are and what they want yaay faal xamu koog lu mu wut Ibrahima yi moom la jël yaay faal xamu lu mu wut looy wut yaay faal ñëw ma pour ay débat may dem ma ne nag lii laay defar si ma bëggoon lañ ko woon secret bi ne si lii secret yu bëri nga si mën a def so xam nga yéen yi su may defar dara lu baax si yaram wala anything dama leen ko dee wanaale right pour pour ngeen def ko right waaye ngeen a soxot ta tayal ta bon ndax su ma ñëwee di leen ko woon ba pare di jaayaale su ma jaay du ngeen ba du ngeen séddoo soxot ta bon te ma robb yi may sol yëpp maa koy jaay ak bagage yi may jaay ba pare ngeen nag la looy diwoo oh nangam nangam oh nangam pour ma waxal leen ngeen jëriñu ak a yéen a yiw fii ngeen may fekk oh das oh, that's fine what is fine yow Ibrahima duma la jël yaa yére bu bula bi yére bu bulu ban tukkul yow doo jënd nii nga def last time naan yére bu li yére bu laa bind ma du yaa nga xamee suma whatsapp wax ma ko foofu topp vidéo yi jigéen ñi hut vidéo yi jigéen ñi dugg rek looy hut ba naan jël ma ñëw ma pour waxtaan yooyu may dem yéen laa doon bugg a woon lii ak fàttali leen kurus yeeg yooyu soo gaay lii diwi koko la diwi koko bi soo ko xamee nii <clears throat> xam na secret yoo si mën a def yu bëri foog naa jël ma la kii di bind góor gi Abdoulaye Cissé man kay jëluma la yow la kan ak looy xul xaarale beneen yoon su may jël nit ñi fi mu ne nii taluma jëlam nit may dem dégg ngeen ko te xamul lu ngeen di wax moo tax soo gaay gi ngeen lii ku bëgg ma waxalee secret bi ma leen bëgg a waxal si lii ngeen bës ko séddoo ko ma ne leen wax dara ma tëj caméra bi dem defar ko use ko waaye man bëgguma ngeen jàngal ma seen soxot gi de ngeen a soxot ta mën a defante te soxot yéen ñu bëri waaye ngeen dafa ne man maa mën a defante wala maa soxot bi ko ma leen di def tontu comédie wala <clears throat> di wax suma askan bi dëgg doo taxu ne maa mën a defante te soxot de yéen a mën a defante te soxot dëgg xool leen ni ngeen mel <laughs> lu baax lu baax la lan jëluma leen yéen góor ñi randu leen ma paa ku ma bëgg a bu leen ma indi problème <laughs> danaa rey góori askan wi yàpp may leen ma jàmm <laughs> barke salaatu faatiya baleen ma waaw ku ma bëgg a takk <laughs> te borom mu may seetaan <laughs> wàcc na liggéey fi mu ne nii mu ngi togg reeram di ma yundu nii live <laughs> I'm telling you this mu ngi ne teg di gis ngeen dugg bi naan ami nangam nangam duy bugg loolu ay góor dugg di ma fitnaa ak waa waxi kaya kaya xam xàmmee na góor gu dugg wax farata ak góor gu waxi kaya kaya su doon man la sax moom muy def live jigéen ñi di fa dugg waxi kaya kaya du ma neex maa ko gën a fiir foofu génn leen ci man tabba ma man saalu la saalu saalul man saalul saalul wadaal waxal si góor yi xeesal jigéen ñi xeesal góor ñi xeesal góor jigéen lañ moo tax tudduñ góor jigéen la ngay gis ngeen ni góor jigéen yi fañ bëri léegi oytu leen bu leen dugg si mbiri góor jigéen mbiri jigéen jigéen stupid stuff yi yëpp no just normal stuff ok mhm. so guys bés leen te séddu aha leen lii gis ngeen lii diwi ko la so diwi ko soo ko mënee defaral sa bopp moo gën ok dama leen dee wax ni koy defaree sax soo ko mënut nga jënd bu baax bi ñu ne organique la but I don't know how organic it te su dee organique la sax xaw ma ndax lii yëpp diwi koko la wala fañ ko jaxaseeg dara ok ma seet si bind great for frying baking roasting or just spreading ok package in xaw ma waya food xaw ok uh, coconut oil hundred percent fo ñuy fen ah kon de ñuy jinne lañ <laughs> pot bii ma jëndee ko ñetti pound ak awma ñaata <laughs> coconut oil man su ko defaree bala maa xam ay coconut yu defar pot bii <laughs> siwo coconut danga ko naan bala nga xam benn pot bi wala ñaar siwo ba mu fees siwo yu mag yi sangoo Afrique danga ko feesal coconut te benn pot bi nga si xam wala ñaar ay taxaw leen moo pare moom mu jaayem ñu jaayema lii ñetti paaw naan naan hundred percent coconut oil ah ok whatever ok guys so lii mën nga ko barki yàlla ku may kool danaa ko bolog boromam may seetaan naa ko so lii soo koy jënd is better nga seet bu baax nga jënd ko bës leen ta seedoo rek naa leen waxal ni ngeen di def ak lii yéen xaar ngeen ba sedd wala du ma leen wax dara bu dee ngeen a tayal te soxot kay mooy ne soxlawu leen koo xam <coughs> man xaw ma lan man man ah. jat xaw ma ba daba daba xaw ma li ngay wax so guys gis ngeen lii su ngeen ko bësee te séddoo ko naa leen wan ngeen ko defee yépp ngeen di ko def di ngeen xam yaram bu rafet te xam na beneen secret mu leen bugg a wax surtout góor ñi nga xam ne seen gémmiñ gi fay xesew ba kenn du leen mën a fóon xam na jigéen ñu mel noonu tam <clears throat> koo xam ne fa gis sa gémmiñ gi fa xesew na mba wan ngay lekk-lekk yu bon moo tax number two doy boros number three um, just doy lekk-lekk yu baax maanaam dooy naan ndox bu bëri dooy naan um, ndox ak limon wala ndox ak apple cider vinegar wala um, ndox bu bëri in general doo koy naan te danga dee lekk ay ndawal yu bëri danga dee nekk di naan café yu bëri juice yu bari lekk goo xam ne daal like su nëbee sa biir di fay xasew lu bari nga day lekk instead of fruit vegetable surtout fruit dooy lekk fruit yu bari te dooy naan ndox bu bari for sure ok loolu si number one luy waral gémmiñ gu xasew loolu si la bokk ak ay tux yeeg nonsense yi ngeen di def di feebar seen yaram wi di xesew seen gémmiñ gi di tux lu ngeen di tux lu ne yéen a koy yëg bës leen te séddoo rek danaa leen waxal nu ngeen di def su ngeen bësee séddoo Ibrahima Ka randul suma vidéo bi boo jëndul faana faana soo faana faana lan soo guys mais ñoo defar lii mais ñoo dem waaye ma ne leen ko soo lii nii um, lifin la um, rosemary oil lii rosemary oil la rosemary oil so rosemary oil bi moom ngay jël nga def ko ci coconut oil maanaam bi nga nuyoo loolu doy na rosemary oil bi lu bari nga si mën a def ok waaye right now dañ koy def fii so boo ko defee fii nga war a xam kuddu yëngal ko waaye xamee ma kuddu bëgguma see dugal suma loxo because dinaa leen wax waaye kuddu gi ma koo fàtte indi su ma demee dinaa jël kuddu gi si waañ bi rey na so nga koy yëngat ba am jaxasoo nga dëpp ko def ko sa wanag bi soo soo xëyee ba dem si wanag gi brosse sa gémmiñ gi because yaa ngi war a dem liggéey wala jos xeexu nga brosse sa gémmiñ gi tàppate leen te seddoo rek surtout boo duxee góor wala even jigéen waaye su fekkee ngaa bugg sa bëñ yi gën a weex wala ngaa bëgg sa gémmiñ ngi xet gi génn ok so soo brossé ba pare nga luqati nii sa loxo wala nga jël ko dugg ndaw bo is bete nga sa loxo because ku dugg ndaw doo ko a xamee si wanag <laughs> ku dugg ndaw si wanag <laughs> whatever luqati dangay luqati nii rek hmm? soo luqatee nii sa fekk sa loxo yi ni nga brossé sa gémmiñ gi sa loxo yi xam naa dana setaale you know nga sëlmu sangu whatever yi know <clears throat> soo nga luqati nii dugal sa gémmiñ ngi nii luqati si lu bari nii dugal ko sa gémmi gi bàyyi ko fa nga dem sang solu you know def lu ngay def mu nekk sa gémmi gi nga di ko def nii muy dugg sa diggante ba ñi di génn waaye bu ko wan ne de waaye bu ko tëfli nga bàyyi ko sa gémmiñ gi meg soo ne mu nekk sa diggante bëñ yi bu ko bàyyi si biir làmmiñ bi si gannaaw na nekk si boori bëñ yi dina nekk si gémmiñ gi waaye na na laal bëñ yi fay setal bëñ yi te fay génnee tilim bu xesew bu ne si bëñ yi but it's fine su xeboo mu su soo ko téelu yàgg dana romb bëñ yi rek parce que di ngay xam su ko téelu yàgg sa gémmiñ gi fay xam ay tëfli mm-hmm. this is what I'm trying to say waaye ko soo ko miinagul soo ko téyee for second nii sa gémmiñ gi fay xam tëflit yu bëri because miinoo ko soo boo ko téyee ay juróomi minutes su boobaa nga dem sànni ko waaye bu yàggee danga ko mën a téye lu mat fukki minutes ñaar fukki minutes ba genn wàlli waxtu bu yàggee xanaa soo xamul time bi yaa ngi war a dem léegi su fekkee ne nga ko suba noonu ba pare nga tëfli ko fii mën nga ko téye juróomi minute wala fukki minute su <clears throat> fekk bros nga ba pare soo paree nga tëfliko nga dem bu lay ndeexaat gémmiñ gi bàyyi ko noonu rek léegi su dee ngoon nga sangu ba pare bros nga defaat again ok soo ko miinee danga koy dem ba mun koo téye lu mat genn waali waxtu ok you want to buy the scrub ok I can make it for you I already have two people that ordering by the I want to make it this week coming, like on Monday or Tuesday. I'm trying to get the pots are the problem, okay? Because I ordered it, I don't know. The pots are the problem. I'm even trying to get some from Senegal, if possible, you know. But yeah, I can make it for you. Or oh, contact me here and I'll give you my WhatsApp. Okay. So, thank you about that. This crop is very good. You, not going regret it, yeah? Mm-hmm. so lii nii su ngoonee soo brossé ba pare nga defaat ko sa gémmiñ gi luqati xaat dugal si bàyyi ko noonu lu mat fukki minute ba fukki minute ak juróom ba ñaar fukki minute nga dem tëfli ok lii boo ko yàggee def sa gémmiñ bu dee ngay tux ak nga xam gémmiñ wala ngay tux wala sa bëñ yi rek nga bëgg mu gën a weex yépp dana ko dimbale dafay dëgëral sa bëñ itam daf dee dëgëral bëñ lii nit ñi ko yàgg dem moo tudd oil pulling xam na nit ñi ko xam waaye ñu bari xamuñ ko so loolu benn la boo mën a def ak lii beneen bi loo mën a def mooy gi nga du ma si defee lifin bi nii um, rosemary oil bi nii hmm? su la neexee nga def rosemary oil su la neexee nga nga def vitamine E instead of oil su la neexee nga def lavanda bu la neex rek hmm? léegi su la neexee nga def fa vitamine E ak rosemary oil wala ak lavanda wala ak um, tea tree oil xam na yéen ñu ko xam tea tree oil dafa baax trop si skin ok nga def si yëpp ba pare def sukur mhm. ba pare def lem mhm. ba pare def ka kofi wala nga def sungu fi mbuum wala again nga def sungu fi uh, lifin bu ma leen waxoon fuddan um, bi mhm. jaxase ko dem si wanag bi scrub comme nu ma leen wane woon scrub bi fuddën bi scrub everywhere sa yaram bi yëpp lu mat fukki minute ak juróom ba ñaar fukki minute nga bàyyi ko nga soog a sangu ak sa saabu you will thank soo ko defee ay yooni yoon soo ko yàggee def sa yaram bi ku la gis na looy diwo again mun nga ko use massage maanaam nu mel nii nga def si lavanda oil bi wala nga def si peppermint oil wala nga def tea tree oil waaye lavanda is the best because lavanda daf dee tax nga nelaw xet gi daf la dee so boo defee lavanda oil foofu noonu xam naa ko waaye suma cabinet bi nga jaxase ko léegi nga wala lavanda oil bi the best uh, diw moo ko dee bëgg a jaxasee number one mooy almond oil nga def almond dinaa ko def next time su ngeen bëggee mix of almond oil uh, avocado oil extra virgin olive oil with uh, some vitamin E oil nga def fa lavanda oil bi wonderful nga jaxase ko nga di ko def oil massage soo xamee sa nijaay nii guddi nga massage ko mu tëdd su sonnee wàcc liggéey nga massage ko mu massage la wonderful massage dafa baax si sëy massage dafa baax si love fay ngeen gën a jegeante fay tax ngeen nekk ay xarit waaye nit ku bonta mën a na boo koy massage tax du tax nga xam ko de fay fen di la di am ay secret di la nëbbu fa bon loo ko massage massage du la wax dëgg loolu taxul may wax de nit ko gore laa wax te mën a wax dëgg waaw fa xam ni ñoo xam ne danga leen war a jege rek soo leen jegee rek di naxante ñoom danga leen xam danañ la wax dëgg gi nga ni ngeen ne teg mel ni ay ngaana yu si butu jot bi ko maa ngi wax lu ñu jëriñ parce que ngeen demee si vidéo yi ni ñuy waxee waxi caga waxi saaga ndey ngeen di lawlaw yu bës nag waaye bi ko maa ngi wax lu ñu jëriñ te àndut ak lu bon <clears throat> lu yàq nii ñi moo tax ngeen seen yur gi métti dégg nga soo lii laa doon defar ma ne mu ñëw ñëwoon leen ko lii dama koy defar pour def ko si wanag bi pour suma brosser mu def suma gémm gi <clears throat> surtout yéen ñi tux wuu yéen ñëpp a war a def lii tuxkat kenn du ko mën a fóon ku tuxut du la mën a fóon xanaa yéen mu yéen jigéen ñu des près di moom lu nekk nañ ko def man de góor guy tux duma lay mën a fóon surtout nga tux ba pare ni sa gémmiñ gi xëy cigarette xalaatuma ko dooma jege ngay boros ba pare dugal li sa gémmiñ gi <laughs> bàyyi ko fa lu yàgg <laughs> fay dindi xet gi beneen bii dindi xet gi mooy ngay naan ndox bu bari aka di naan ndox ak limon walla nga ba tux gi rek tux gi fa lay rey dafa xesew te bon sa dënn bi yëppay feet de lëg sa dana fatt nga de loolu lu ko jar fi ne nii def leen noonu loolu laa leen doon woon si maa ngi dem waaw jërë ngeen jëf leneen li baax mooy bii clove nga yëy ko soo xëyee nii suba teel nga yëy benn clove fee dindi xet gémmiñ mbala nga jël clove bi baxal ko def ko ci baxal ci lu xa lu sakkandaal ah denc ko denc ndox mi si fridge bi léegi soo xëyee soo borosoo ba pare xaw ma na bu jeepee lu may seetaane nag waaw na bu jeepee moom doon defantee góor jigéen ñi confis ta rek tey tey jël vidéo nit di leen buli te moom ci waxoon gémmiñam gi ni mbalka gu sibutu màgg yaram kanamam gi ni màggatam tubaab bu sibutu ni màggatam nigérien màggatam màggatam ñag bu sibutu moom mu foog ne moo dàqaa dina si na bu jeepee moom moom may seetaan fi ne nii de ak jaalu yàlla mi ni sàgganu golo <clears throat> taxawal moom xale <laughs> soo jëlee clou bi def ko si ndox ah <laughs> amin soo ko baxalee ah def denc ko sa fridge bi ndox mi ah léegi sa wanag bi su fekkee nga xamee sa téléphone noonu pour soo sebenee you know ok su fekkee ngay jàpp lii nii kuy jàpp du mën a use satala gi di si def clou di ko jàppee just because nga ko bëgg a wisoo daf dee baax nga wisoo ko jigéen <coughs> góor sax <coughs> góor gu wisoo kulóof de <coughs> góor mën na ko wisoo I don't know ay jigéen kulóof daf si baax nga di ko wisoo soo léegi ni ngay def mooy ngay xamee butéel man dama xamee butéel si wanag bi pour wisu plus nga xamee satala pour jàpp is better léegi butéel bi ngay xamee pour wisu moom ngay sotti kulóof allo sotti si kulóof ak ndox kulóof bu xem rek ngay def ndoxam kulóof bi fekk yaa ngi ko def sa frite bi denc ko ndoxam kulóof boobu nag moom ngay def tuuti ci butéel bi def si ndox pour wisu ba ko si si si wanag bi dee nga ndoxam kulóof boobu moom tam ba tey soo xëyee soo brossé sa gémmi ga pare mën nga koo gàllandikoo ni nga koy gàllandikoo mooy <clears throat> nga koy def si beneen butéel bu ndaw bàyyi ko sa sa waañ wi su fekkee nga xam xeti gémmiñ laa man du may def lu xaw ma xeti gémmiñ su dee nga xati gémmiñ walla ngay nekk di tux walla jos nga nekk di koo xam ne koo gis foon wala dooy lekk-lekk yu baax sa gémmiñ gi xam xet daal sa làmmiñ weex si biir weex xam feebar nga war koo xoos walla def dara façon ngi nit ñooñ I don't know yow na bu xaw ma looy ree yow gis naa la nga def suma nataal ba naan xaw ma lan aka a def nataale nit ñi di ñaawal nit ñi waaw te yow sa bopp nga sibbutoo sibbutoo sibbutu ba xay dal di xuloo góor jigéen ñee ka def ay billaay danga ma xawma ma lan jërëjëf gis naa la ngay ràng ak góor jigéen ñi defante ak a defi yow daal anyway what was I saying <laughs> léegi <laughs> léegi gars yi may ñëw dem sax ñëw ma pour yàgg billaay waa ndoxam kulóof boobu noonu mun nga ko rek si butéel bu ndaw def si si si wanag bi ok soo xëyee waaye su fekkee yaa ngi def lii jaru ko ok bor su fekkoon ne xamoo lii mën nga koo gàllandikoo dana génnee sa xeti gémmi ok waaw léegi waaye jigéen is very important nga xamee ndoxam clove bi def ko si butéel def si ndox di ko wisoo soo awoo sebenee si wana bi nga wisoo loolu bul wis bul wisoo ndoxam kese wisool ndoxam clove bi very important jigéen di wisoo ndoxam clove yow na bu xaw ma looy ree yow waaw moom laa xamut looy ree man moom la xamut yow yaag ami jubayam foog naa xamoo jëkkat yow it xamu looy wisoo ndoxam kulóof su boobaa <laughs> very good I know right it's very good darling borom jëkkat bu ne nam wisoo ndoxam kulóof <laughs> dégg naa ñu naan fay te jigéen tam nangam nangam mbot daf dee tax sa jos dafa baax daal dee ko def ok mm. te boo ko yàggee def di nga gis njëriñ li jarul ok te dana dimbale doo xam ay xet ak yooyu noonu tamit <clears throat> waaye number one luy tax doo xam xet mooy ngay naan ndox bu bëri lekk-lekk yu baax si yaram maanaam ay ananas ak yooyu no ngay ndékkee ananas wala xaal I think is peppers peppers yes you you gonna do small you don't do a de just little bit mu ne fa safkaani fay fay lakk fay lakk kay tuuti ngay de kulaane ngay jël kulo bi ba xal lii yëpp you know non soo baxalee lii nga koy def si beneen butéel def ko si fridge bi nga xamee sa butéel bi xamee ndox toqal si lu xem doo jël kulo bu xonq bi noonu lu bëri lool non <laughs> la lakkee ba nga dee nga xam <laughs> lu ngay def ok soo ba pare kulo bi léegi soo ko bàyyee si fridge bi soo defaree basaab de leen defar basaab bi ko naan fa baax man dama dee jaay basaab bot soo buggee nga jënd ko si man xooj ko wala nga jëndi ko feneen léegi soo defaree basaab bi nga jël ndoxam kulóob boobu sotti si def sa naanaax ak yëpp yu noo def sa ndoxam kulóob ngeen naan yàqale wala nga naan <clears throat> def ko si fridge bi di ko naan moo gën juus ngeen di xaru dee leen jënd basaab di ko naan te bàyyi juus yi ngeen di jënd jos bi ko juus moo gën a yomb moo tax seen yaram du rafet te moo tax da ngeen feebar dee ñu jaale leen te xéenewuma leen lool this yaram yi soo ko fan this is su ma waxee nga ne Ami Diop moom dee rek lay wax dee taxut a dee it's just dee si àdduna bi la nekk kenn mënu koo daw te jaru nga di ko daw di ko ragal bu ko tudd bu ko tudd calm down it's just dee tudd ko taxul nga dee nit ñaa ngi sang nii buut bu set waaye nga ragal a dee loolu nga war a laaj yàlla looy def ba ragal a dee so sa waxtu ñëwee doo ko romb dég déglu ko tudd da kàddu dee du tax nga dee yéen wér ngeen mel ni ay gune yu ndaw moom dee rek la ak a nit ku ñu la ragal dee te mën a xaru du lekk-lekk yu baax du def boppam chemical bu ne mu use ba pare boo tuddee dee mu tee ah, waaye ngay tiit mais ni ko bugg ta dee te everyday ngay xaru I have clove alright I use it everyday soo boo defaree tii wala kafe mun nga see def tuuti clove ok waaw fa neex ba bugg dee si tii wala kafe léegi du ngeen bës du ngeen mu ngi lëndëm si sax may ñoo dem guys ok mbala nga jël clove bi benn doom rek yéey ko suba teel ngoon nga yéey benn ok clove fa baax si wér-gu-yaram lool duur looy toog ba sooy toog rek sànni si tuuti wala toog ba xat ak xat nga naan ko no clove bi nga ndoxam clove boobu boo ko defaree kon nu ma la ko waxee <laughs> ndoxam clove <laughs> léegi soo xëyee ngay tàngal ndox def si mbuumam nebedaay sunguf mm-hmm. yëngat ko toqal si ndoxam clove bu ma la wax noonu naan suba teel <laughs> very beautiful black I love you Ami thank you léegi wow sam seen ndoxam kulóof bi bu la neexee nga tàngal ndox suba teel comme kuy defar tii wala kafe <laughs> ah mu ne moom tam ko koy yëy mbala mu def ko si tiyam bi si fa neex boo commencé ak tii doo ko baati léegi bula la neexee nga tàngal ndox comme kuy defar tii wala café hmm? nga def ndox mu tàng si kaas bi Hmm? nga def si basaab mooy basaab bi ma wax ne jigéen fa ko war di naan suba teel nga war a xamee basaab xooj ko nabu nabu dikkaat na xama fa xam nu muy defam ndéet fa génnoon te dikkaat foog naa de léegi soo tàngalee basaab bi defar ko def ko sa frigo ci ko bu ko suukar soo xëyee suba ngay tàngal ndox def ko ci kaas comme ku bugg a defar kafe na naboo ngi ñëw duma ko jël xama lu muy léegi <laughs> soo ko defee si ndox comme kuy defar café amin soo defee ndox mel ni kuy defar kafe ok nga sotti si ndoxam basaab bi nga xoojoon ngay def basaab bi ndox mu fat maanaam basaab bu fat ric nga denc ko soo paree nga sotti tuuti lu xem ba pare yokk ci ndox mu tàng mu tàng nga xeeli sa ndoxam kulóof yëngal bu ko suukar de naan noonu suba teel mbala nga defar buy def ci ndox mu tàng def ci lem xeeli sa tuuti ndoxam kulóof ba tey fa neex naan just del use ndoxam kulóof bi daal you suba su nekk nga bët bu set nga naan ko benn yoon wala ñaar wala nga yëy benn kulóof wala walla ñaar ci bis bi ya ok loolu rek laa bëgg wax si mbiri kulóof bi kulóof bi dafa baax lool waa jigéen ji koy use góor ku ne ok bu leen ko di sàggane surtout ñun ñu nekk bitim réew bi bitim réew seen lekk yi baaxul seen ganaar yi ngay lekk foog ne ganaar ngay lekk du ganaar fañ koy péngu ba ganaar yi xem ni nag xem ni ami jóob ci ñaari fan engrais ganaar ya du ganaar fay joxe feebar yàppi xar ya yàppi nag yëpp di séem soo fu mu jaar lekk ay buy basaab mbuumi nebedaay kulóof mboolem yu baax si yaram yu ne I want to apologize ah man kay jëluma la mu I want apologize su beneen yoonee nga ñëw bu ñuy def topic ñu def topic fi mu ne nii kay doon woore meruma si yow ba nga naan I want to apologize yow laay wax loolu noonu rek man maa faale loolu maa dàqa lonk ñi di tooñ man comédie laa dee def ku ma bugg sax moom moo du nangu nit ñi ni ma dee ñaawale di ko dee neex soo daf ma dee xaaye <clears throat> bul def li bul def laa ni ñi fañ lay ñaawal du may neex waaye man rek faale xuma loolu man comédienne laa faale xuma ay ñaawlante ay xajjante su ko wéyee dëgg des ñun xàjjante la ñuy def suñ kër su booba ngoon ak a tooñante di xàjji du ñuy saaga de su ma yaay yarewuñu loo waaye ay tooñ sa bopp bi ni lii nga mel ni lii loolu du dara si ñun moo tax ma mel ni <laughs> so yow ma lay tooñ noonu <laughs> ma laa gis ma xalaat ne yaa ngi mën a mën a tooñ ñu loo wala just relax mën kafre <clears throat> dégg ngeen ko so loolu rek laa leen bëggoon a wax si diw oil bii yu bëree bëri nga si mën a def you know coconut oil but yeah ba pare ku nekk Gambie bugg ko jënd coconut oil bu purée bi suma rakk mu ngi koy defar di ko jaay man maa ko jàngal nuñ koy defaree ay xat si ba tey daf koy defar di ko jaay surtout que dëkk ay boori Serekunda Banjul burusu bi area yooyu noonu daal ba kaw sax soo buggee waaye mun ngaa taseeg moom waaye kaanifin lay sëy waaye fay taseeg yow kon jox la ko wala nga yónni nit mu jël ko. original one moo koy defar pam nal ko soo buggee bu koy defar mu film ko wan la xamul benn tappale waaw fa naqadee defar nag waaye dafa baax waa su ko xamee diw booy diwoo nga sotti ko si sa yaram fay rafet neex nooy man loolu laa dee def ndax ko dee yónnee fii ma di ko def si diw yu may defar mooy diw yu may diw jaxase ko moo yeneen diw yu baax di ko diw ay karité ak yeneen diw yu baax <clears throat> original olive oil original almond oil original avocado oil all of vitamin E all of nga mix leen together ku la gis ne la looy diw te bul xeesal mel ni golo lakk ku la gis xam ne nga bañ sa bopp te ngay ñaaw ba mel ni mbëtt mel ni màggatam junniyaat xoolal léegi man noo mel nii te gune yu bari ñu ngi xam ñaar fukki at ñaar fukki juróom di xeesal te maa leen gën a nekk gune ku ma xool man lay ne maay gune gi ngir xeesal bi ni muy def seen der bi bu ñu ñëw tiktok fa ñu bës filtre bi ba mu nekk one hundred ana filtre tiktok wa xam nga filtre bi nekk ni xam naa ko waaye si digg bi la ni xaaral dindi ko dindi naa ko rey na nii laa mel xam nga ba tey maa ngi nice noonu léegi xaaral wala na ñoom ni ñuy def filtre bi nag mel ni jinne ji si butu nii la ñuy def <laughs> seetlu woo leen mel ni liir du ñoom filtre fay dem si loxo yeeg fu ne surtout kanam gi lay gën a focus nag du ñoom mooy ne xeesal taxul nga rafet boo xeesalee sa ba tey ngay def filtre mel ni golo gu si butu what's the point you know what I mean just what's the point right la loolu am na your mic echoing ma maa ngi dem mu ne sama mic fay echo waaye may dem dégg ngeen li ma doon explain teedu ok guys maa ngi dem so don't worry Nabou it's no need to apologize I'm not mad you anything I'll take you then. Guys, loolu rek laa leen doon woon yee du ma yàgg may dem. kooku nag Sorry to be this bitch. allo Mike ma naan Mike sax Mike bi mu doon Mike bi mu ngi kontaan naa bi nga ma jëlee damaa kontaan bi nga ma jëlee. Mike bi may rindee moo tax ma naan la hello Mike allo Nabou. ami baal ma àq man sama vidéo yëpp damay kaf rek billaay wallaay taalaay man du ma saaga du ma wax nit dara damay kaf rek bëgg ñëpp reetaan ñëpp kontaan. waaye wóor na yàlla garanti bi billahi wallahi taalaay doomu aadama laa comme ñëpp bugguma wax dara lu naqari dit damay kaf doongu bindaay wallahi taalaay nan la na la waali jël ak waali am na fecc kat ak nangam damay kaf de man du may du ma saaga <laughs> barki yàlla yow laay xoolal billaay du may du may damay taf rek pour ñëpp reetaan rek comédie laay def comme yow rek mais billaay man miinu ma pour wax nit lu ko naqari wala lu koy teree nelaw xalaatuma ko sax billaahi wallaay taalaay te man damay bëgg sax ak samay photo di comédie billaay du ma ci am dara lu ma naqari ku jëloon sama photo tey comédie billaay du ci wax dara lu ma naqari billaahi wallaay taalaay mais damay bañ rek waaw damay bañ rek nit defee ne dama koy wàcce wala dama koy demat wala dama koy kii yow sama vidéo yi boo duggee yëpp xool li may wax ñoom Amady Badiane ak ay Youssou rek man bàyyiwuma kenn mais la de. man maa la man maa la tooñ barki yàlla yow laay wax loore faale huma lool. billaay wallaay wóor na yàlla. yow laay wax loo faale huma lool. <laughs> waa jërëjëf waay. billaay dama bëgg rek pour ma comprendre loolu rek billaay man boo hmm. comprendre rek dina ma neex. yow laay wax loolu maa la dàqatooñ foofu waa jërëjëf waay kon wala baare ok waaw jërëjëf nekkal si jàmm dégg nga thank you so much jërëjëf waay ok merci jërëjëf waaw hmm. yow boo nekkoon Angleterre kay nga indi ma bagage sax man maa ngi soxla beneen jeepee bu ne Angleterre ku xam beneen jeepee bu jógee Sénégal di ñëw na ma dimbale parce que suma jeepee bi daf dee yàgg yéen yi bala moo ñëw you know allo xam keneen ku bëgg a dugg de allo naam si loo ne jàmm rek yaa ngi ci jaam sant yàlla chaque jour damay bëgg dugg sa live mais damay woote ba découragé coupé te dooma jël oh jéggal ma waay mais yaa ngi ci jaam sant yàlla rek dama lay si suivre chaque jour bu tamit bëggoon naa fekkante ak moom mais wàcc na saan dama leen di bëgg lu bare bare bare yéen ñaar jërëjëf heure bu ma liggéey jee wàcc naa bu ma ñëwee rek si yéen laay topp <laughs> oh jërëjëf waay di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm may leen wér gu yaram bàyyi leen fii ngeen du ñu bégal chaque jour amin amin amin waaw dëgg yàlla parce que Europe gi nekk fi doy na doy na stress mais nag dëgg yàlla yéen a ngi dindi suñu stress bu baax a baax jërëjëf waay yéen a ngi koy dindi bu baax a baax man dëgg yàlla yéen dong laay topp nag jërëjëf so much yow ak fi yéen dong topp oh jërëjëf waay. <laughs> ndax mu ngi noonu yow amal jàmm. <laughs> thank you. dana jàmm sonal lu bari waxal ma na bu nag nekk maa ngi koy bëgge. oh jërëjëf waay. tamit damay commenter ay vidéo di like mais tamit mooy loolu yaa ma gën a xam in am leen jàmm mm. rek. mu ngi lay dégg jërëjëf waay. ja jàmm na leen jàmm sonal yéen. amiin waay thank you so much. kontaan naa. <laughs> thank nga ok kaa jël kii nii xaw ma ni ñu bëgg a ñëw nii te man ma a dem gars yi ñëw ma pour yàgg oh my god. allo dindeeku na keneen ko dee góor la xamal muy góor ñi bugg a ñëw ne jëluma leen toogi leen what the hell man fu ngeen gis ay jigéen rek ne lay yi dugg yéen lu ngeen di wut ci jigéen ñi surtout góor ñi may lay lay yi call whatsapp naan fañ ma noba ka def yéen duuma seen morom caga ngeen te yàqu te bugg yomb torop tey cot-coti ni seex siise muñ suuli rek man ngeen a dajal jigéen yi àddina si yëpp lii lum doon te yéen ñu bari ku ngeen di yi layi naan ngeen koy takk ku ngeen takk mu dee mën a fenta soxot ta caga te bon yéen ñu bari noon ngeen mel li jënti leen seen feebar bi leen dal ta faju feebarab jikko jigéen ngeen ji may wax nii bët bu set moom laa leen gisee ci tëb ku ngeen gis tëb yéen malaa bugg du may nelaw su ma la gisee may sentir loolu may sentir yaa koy yëg loo sentir ak looy waaja a lu cay suma yoon wéetoo koo gis di sentir sentir yi wéy yén takat ngeen a a fen ba nga xam ne ngeen di tax ba góor gu la bëgg di wax farata sax doo ko mën a tee yàq ngeen askan wi xaw yéen a bàjjo yéen ngeen fa ne góor yàlla fa la indi si askan wi pour ngay fen di balaag meenal ay jigéen di fen ay jigéen di balaag meel di cot coti lekk yi fen ak a xéeg jigéen ñi rek di lekk ak a fen ak a xéeg jigéen loolu rek moo leen indi si àdduna bi góor is not about fen balaag meel xéeg jigéen lekk cot cot cot di selfie di xalaat boppam rek xanaa góor gu xamee naqar te feebar dof du ngeen de seen bopp ni ta fajoom te jàng di wax dëgg xemale seen bopp xemale seen bugg-bugg ci jigéen ak yépp experts yëpp wax nañ ne àdduna si léegi luy problème bi surtout góor ñi mooy dañ miin di bugge torop xalal sax fa ñuy wax ne fa ñuy xam by force jigéen bu ñu xam rek ne beneen la ñuy xam di ko seen xel mi duy foo ko duy dal seen xel mi fu mu toog rek mu ngi bugg moo I want more of this I want more ñu bëri ñoo xam feebar boobu léegi du góor rek góor ñu bëri fañ ko xam feebar boobu jigul góor moo tax góor ñu xam xalal ñu bari sax du ñuy toog xem si jabar yi because dañ miin bugge trop dañ miin ay wan moo ay wan moo ay wan moo xaduna nit ngay kaam doy lool li nga xam sooy xut moo tam nga kaam seen xut moo mii ngeen miin nag ba seen yuur gi nëb ngeen xamee ay ay jabar di ko sàgganee di xut beneen jabar ak a wax ak yeneen jigéen surtout yéen ña ne Afrique ca kermango gu tàng gële foog ne da ngeen gis jeeg bu ne ci sedd bi rek ngeen tëb yootu ko la la di layi layi wax rek jeeg ba ñëw fe dagatiki dagatike ñëw fekk leen ca ker mangoy takk leen indi leen bitim réew gii baña xaw jeeg bu yàkkamti ta dof wala yéen ku dugg ci yéen ñu robi borom yéen ñu bëri jeeg bu dugg ci yéen ñu suuli ko du ko nettaleeti yéen rek ci soxot ak yab jigéen ak jeeg jeeg moom ngeen gën a yab nag mais ni xamu leen ay jéegi mbokk jéegi mag jéegi rak jël jéeg rek def ko xaj surtout jéeg bu sëy ba tas surtout ku sëy sëyaat mel ni maase ami jóob yi te dangaam te yu noo xam lu mu bugg uu ngeen gën a bañ nag li ngeen di soxot te jéeg bu ngeen toroxal ba jéeg ba gëm boppam ba def boppam nit ba du nangooti toroxtaane ga ngeen gën a bañ borom nag ne lu tax mu def boppam nit léegi jéeg ba su deful boppam nit lànk toroxtaane ga nu muy def ngeen koy rey su continuer di muñ fay dee léegi lu ngeen bugg rek moom ma jaaxam ngeen bugg far jéeg yi xaru noppal def leen seen bopp nit taba jeeg yii ngeen riit jëmali surtout jéegi bitim réew yii ngeen riit jëmali taxal seen warga Afrique direeku ca internet ba ak seen baraada ak seen kaas di cot cot ciy wax di cuut cuuti seen baraam yi ni golo yu ni golo yu ngas yéen ñu bëri xame seeni jabar feggoog moom di lawlaw yi yóotu ka ne bitim réew di ko takk sa sëy du dox loolu mooy suma sëy bi mu jatas nii borom xànd ak xaaxo ba d'accord ne mukk topp ma rek ay xat fa may takk ne fa ma loog ta fay fen takk ma ba pare xànd ak xaaxaw ba ñu ñu mel ni ay ay ay bandi ay ay criminal gang nag di ma play game man jox xaaxaw ba téléphone ba di warga xaaxaw ba di ma whatsapp di wax ak di wax ak man si téléphone yi jëkkatam bay wax waxi saay saay naan su ma la jàppee su ma la defee nii fàtte nga ma la doon def nii nu mu xamee loolu jëkkatama ko ko wax xool leen naqat woo rek ba tey may xalaat loo di di di ree di jooy foo moromi jigéen ba leen yab jigéen ak soxot te duwut ne jabar jafa sàcc téléphone ba dafa fiir te te yabaate sàcc téléphone ba déedéet góor gaa doon warga mu ne moromam ña ñëw muy warga mu jox ko ko mu ne pour mu waxtaanal ko ak man mais ni ku may pilee géem xëyul ma ami muy bind di wax ak man bébi nangam bébi nangam ndeke suma wujj laay waxat xam nga lan la bu leen ma taxawa nii ngeen di def jigéen ñi te bu sëy yi tasee ngeen di xas boroom te fekk yéen a soxot ta bon kenn mënul leen a séel seen ñàkk ngor geeg seen mbon gile seen yab jigéen gi yéen bàjjo yi ngeen doon da ngeen ku de moo tax oto bu ngeen dug dugg mu këpp bu ngeen dugg mu lakk barki salaat faatee may ree ay may jooy yéen seen soxot geeg seen yab jigéen gi bala maa dee nañu naan jigéen bitim réew yi day fay stress moo tax ñu ne si internet bi yuuxu yéen a mën a fen yéen a depress ni ñi depuis Afrique ni ñi ñëw ba fii ngeen di leen depress seen jikko ju bon ja ngeen nee di def sëy bu bon di njaaloo xakas naqari deret ak soxot moo ngeen indi bitimir réew ci digg taax yi fii di ko def jigéen ñi ba jigéen ñi waaj a xëm te bu jigéen ja tàggoo yow nga sànni ko gune ya di defanteeg moom doo ko dimbale ca gune di ko ñaawal te bu jigéen ja jëlee geneen góor guy jaay waane di jaay baax ne ca kermango yële di yunduy jaay baax ba jigéen ja dugg sa bu góor ga ñëwee ñu suuli jigéen ja nag muy ñaari suuli bu jigéen ja tasee geneen góor fii gu sonnit mu ne xaar ma dimbale ko sëy moom góor ga bu ca jigéen ja duggee ñu jaale ko ba tey de mu ne hii kii fa tas tasaat baaxul so waa xaar ma ma xam suma soxla rek te jigéen ju boppam ba mel ni ami jóob du jël noonu see loolu la ñuy gëñee nag xam nga man su ma ñaata ful waa ñëw wax ne ami yërëm naa la is better nga wuti tubaab wala beneen xeet soo seeyaatee suñ xeet bi doo doo fa ne duñ duñ doo mën a xam ku baax you know ku la mën a amee ma ne leen yàlla baax na aka ñoo bañ jigéen ji boppam nag du jigéen ji du nangu noonu seen yuur gi lay métti ndig seen soxotaay waa ak seen ñàkk mën a def jàmb ja yéen waa baax na bu leen faju de toog leen nii continuer si internet bi di wut ay vidéo yi caga di yundu maa si Seex Siise yi mu di leen def góor jigéen aka yundu vidéo yi jigéen ñu gëma di seen bopp ñuy def vidéo yi caga ngeen topp fu ngeen toll rek di cot coti ni ay béy yuñ jaale rek di yundum di di di yundu mbiri cot cot aka def yëfi cot cot rek aka continuer di di xalku bu leen faju seen feebar bi de seen feebarab soxot ak mana a fen ak mën a toroxal jigéen bii bu leen julli ñaari rakka tuub ñaan yàlla mu jéggal leen ko ngeen def seen bopp nit déedéet toog leen di nekk kaawoon di bañ def seen boppu góor li jënti seen xaduna déedéet nekk leen di mbubboo jigéen ñi di leen yuus di leen toroxal di mbubboo di leen yuus pour toog xañ di leen yuus pour ñu jural leen doom di leen yuus pour ñu pour ñu dimbale leen façon ngi yuus bu neree topp leen jigéen ñi di leen ko yuus xàq jigéen ñi di leen dal rek ngeen di xalaku rek gannaaw leen ngeen ko bu leen des seen bopp nit mukk continuer leen rek ta man maa si Ami Joob bu ñu waxee nga yab ma nag ba bugg a dee nag ngeen yab ma nag <laughs> naan Ami Joob ba ngay waxati <laughs> bu leen téléphone ba <laughs> dana wax ba xam ñaar di ci digg téléphone bi xam ñaar di ñu record ko muy xam di cot cot yi xam ku leen topp noonu lay def man suma maas yi njëkk seen jikko ji waa askan wii ku leen oytuwul waaw man nag maa ngay dem wax naa leen ko ne bu ma kenn kool ñu suuli borom faham ak góor gu may waxat man ba pare kooku laa ne ngéejanu ma ko talu ma keneen <laughs> dégg ngeen ko néew ma si caaxaan faham góor gu may waxat ku ma bugg a takk man te ma bugg borom ñaanal leen ma ta tooge bu kenn ñëw naan ma ñippiti ngóolu li baax na jigéeni àddina si bëri nañ lijjanti leen keneen waaye def leen seen bopp nit njëkk bala ngeen a wuti kenn yéen ñu bëri mënu leen a xamee nit fenkat tappalekat njaalookat balaag miirkat yi soxota ta dara te mën a defante jikko jooy fa mën a xamee jigéen yéen seen jigéen ñi nga xam ne yéen ñëpp yéen leen traumatise dóor leen sexual abuse leen toro xal leen ba jigéen ñi traumatise ba confis dof te yéen ngeen soxota traumatise te xal xay dal leen ngeen ñëw ci jigéen ñi traumatise yéen ñaar yëpp ngeen di yuuxu <laughs> yàlla xama buñ <laughs> this is serious <laughs> very serious ah faju ji leen yéen góoru askan wi le ah jigéen ñi ngeen dee baxee faju mi jigéen ñi sax ñoo dee jéem a riit di jéem a risaat di jéem a xalaat ko traumatise maa ngi ni ko traumatise nu muy mel ok ndeke xale buñ koy doom nekkee xale nii lay def ok ndeke xale su magee si pauvreté nii lay def ok ndeke nit suñ ko bitree si loof nii lay mel ok ndeke nangam ok xaara ndeke ndekete yu noo su ma yaa xëñ na dafa xamoon traumatisme moo tax mu di ma dóor di ma yuuxu di ma def moo tax may def nii xaara ko jigéen ji mooy risaaj loolu waaye yéen du ngeen risaaj te lu su leen jigéen ji waxee sax di leen wax mbiri risaaj bu baax sax ngeen di ko daw te ngeen a traumatisé ba nëpp moo tax ngeen cagata xay dal leen di cees dopamine topp jigéen ñi seen cot-cot mi yëpp traumatise te te te te ko waral noonu lay def laaj ko borom xam-xam yi naqat mi ngeen xamee te traumatise te fu ngeen toll cot-cot yi yéeg nit ñi béy sax ngeen yéeg ko gis naa ko ko film vidéo ba góor ga yéeg béy wa tiktok fii ak góor ak nit ku ñuul Afrique xam nga ban dëkk la du du Sénégal ak Gambie nag seen làkk yañ doon làkk borom ak ca kaw néeg ba néeg taax la nit ka ne ca ron bi yéeg béy wa nik ka di ko nataal di ko filmu di ko posté béy wu ñuy xéeg moos nga posté ko ah di cot-coti bay xéeg béy béy wa yërëm naa ko béy wa di meemee béy wu jigéen ñu di ko réeb di ko xéeg lii fari wut de béyoo ba tey nit la amin jigéen la baleen cagata bon te toskarité wik seen yuur gi nëpp ngeen toromataay ñu dóor leen toroxal leen toroxal seen ndey yi toroxal seen jigéen ñi ngeen di ko gi ba seen yuur gi nëpp xamu leen luy normal jigéen buñ du toroxal ku ngeen gis sax du toroxal jigéen ngeen ne fa yembar te ragal jabaram te dof te jabaram liggéey ko because du ngeen di gis lool instead ngeen xool ko ko jàng si moom ngeen koy xas tuutil ko noonu ngeen di def ngeen a min ku ngeen gis muy def lu baax ngeen di ko xas ko moo tax man bu ngeen may xadduma leen faale sax ndegam ku loof jabaram di ko toppatoo di def la ko yàlla wax di ko yërëm di ko déglu di ko muñal lu xam jox ko comme nu ko yàlla waxee du njaaloo du def dara comme nu ko yàlla waxee koo ngeen di wax ne fa jabaram fa ko liggéey fa yembar du wut góor te yow boo duggoon jigéen façon góor ñooñ ngay bëgg a am waaye ngaa soxot ta bañ jigéen xéene woo ko sax benn jigéen jigéen ñi ñi nga xam ne sax jigéen lañ fa ñuy mer bu ñu xamee doom ju baax si jabaram mbala xam eh, càmmiñ ju baax si jabaram jigéen ña fiir te bon te xañaane seen moroomi jigéen jëlool te di ko jëwee na fa ko liggéey fa ragal jabaram di ko ko jëwee aka di ko wax góor pour góor ga def ko pour góor ga bala muy dem soxot laaj ko askani bu dee may fen <coughs> te jigéen ñooñu bu fekkee ñoom ñu ci bëri na jëkkat yu soxot te bon lañuy am moo tax ñu xañaan bu ñu xamoon jëkkat yu baa duñ tal jigéen jooju waaye jëkkër ji soxot ta bon lañuy am moo tax ñu xañaan jëkkër ju baax jooja te jëkkër ju baax jooja ku ko bëggoon na ku ko mënoon a wecci jikkoom ja jox ko seen jëkkër foofu fañ koy jël waaye déedéet xëy wuñ ko jigéen jële nga xam ne mu ngi sëy ca ñoom ngir góor ñu bon ñi niñ bëree moo tax su ngeen gisee ku baax ngeen tiit ne fa dof te fañ ko liggéey te fa ragal jabaram ndi góor ñu bon ñi niñ bëree seet askan boobu de Mhm. good leen ma ta faju ji yéen ñu bari bu ngeen ma takk ngeen may sonna rek yokkal ma seen yi tas nit ñi di ma xas du ngeen ma mën a xamee man góor gu soxot ta mën a fenta bon du ma xamee du ma ko nangu torox naa li may torox si àdduna ba pare dootuma nangooti fi ne ni di torox fres torox afta bu ma xamee xam-xam bi yëpp may torox fres góor googu juddu te du ma sa juddu borom fa may yokkal sey bu tas rek ñi di ma xas may tas di siyaar rek ñu naan sëy nañ nangam yoon ak <clears throat> su ko defee nit ñi gën a xas faale wu ma nit ñi seen xas te anyway but you know good so ngir yàlla baleen ma loolu mooy dëgg yéen ñu bari mënu leen ma amee yéen ñu bari mënu leen a yërëm jigéen ngeen a naqar xam na yéen ñoo mën a amee nag loolu dëgg waaye luy problème man yéen dama dee wax ak nit ma xalaat ne kii bugg na ma dana ma mën a xamee waaye duma koy nopp duur ñi may topp yëpp laay nopp moo tax waaye xam na nit nekku ma maa available de xam na nit ku ma buggante fi ne nii te yaakaar naa ne kooku danaa ma dem ak moom ñaanal leen waaye gi nga man ak jigéen ñi xeewu ñii hmm? yàlla rek a xam fuñ jëm suñ askan bi maa ngi wax lii bala maa dem jigéen ñi ci askan bi yàlla rek a xam fuñ jëm ak jëkkët moo tax jigéen ñi dëgg fa ñu tubaab seetlu ko surtout ci yenn yi romb suñ góor ñi ñëpp nit ñi naan cagale ñoo fañ bon du loolu de fa ñuy wuti real love ak koo ne du leen nekk di bitré du leen nekk di xas di leen bitré di leen def yenn yi du ne tubaab yëpp a baax xam naa ko waaye tubaab dëgg ñoo ñu si bari buñ jébbaloo si yow fa ñuy jébbalu ñun ñoo jébbaloo ba pare ne biti ñun ñu bari dégg nga jigéen ñi xew ci askan bi nit ñu bëri danañ gàddu seen xàq bi ko fa ñuy tas tasaar tas tasaar tas tasaar tas duñ toog ci sëy te jigéen ñi ci askan bi ñu bëri dañuy bugg a sëy bi ko jigéen ñi xew ñu jigéen ju xeexu dëgg du bugg a toog di njaaloo dosin mata tubaab la Chinese xeet bu manti jigéen ju xeexu dëgg fay bugg boppam fonk boppam automatiquement moo xeexu bay xànd bi ko fonk na pam bugg boppam du bugg téeméer nit di ko cëx-cëxee fay bugg a xëy ni boppam benn nit toog ak koog ñu dund mu focus si liggéey ak yeneen te askan bi soo xeexoo because yaa ngi xeexu doo jël nonsense pour nga tasee ku mel ni yow koo xam ne du la jox nonsense loolu mooy nekk problème bi su la yàlla mayu saas waaye ngay ñaan rek julli ñaan yàlla baax na ndax xam na góor ñu baax loolu mooy dëgg gi askan bi xam na góor ñoo xam ne dañ baax man gis naa leen suñ sa yow doo sonn yu nekk góor gu liggéeyu wàcc di wax dëgg di def jàmm di ko wax xam na it's not like xamul de it's just bëriwut dafa manqué comme diamond noonu la manké si ñun xam na nag jigéen ñoo xam ne fañ dem ba foog ne xamut à tool saa ma leen waxee ne am na góor ñu baax si askan bi sax ñu naan ah góor ñu góor yëpp xamut jigéen yëpp tam xamut am na góor ñu baax ñoo xam ne soo leen xamee fañ lay nopp lu raw tubaab ne tubaab yëpp a baax waaw xam na de is noonu lay xamut de. so bu leen foog ne maa fuuloon négative just foog ne góor yi yëpp a bon you know nangam nangam no man ñaari doomi góor laa am waaye may foog ne góor yëpp a bon xanaa sama doom yi lañ bon it's just man maa xam ne dañ soxla moo bot yàlla baax na ya mm-hmm. ñun jigéen ñi tamit si lañ bokk si xay wi lañ bokk ni si bokkee mooy for exemple ñu jigéen ñi bari nekk lu du ay nekk jëkkëri jàmbur yi wala just lémbalante ay far duñ dee nangoo toog muñ ba sëy soo góor gi su bonee bay njaalo yow bu ko dimbali si mbon gi di ko jox lu mu bugg muy sàgganee jabaram sa morom mu di ko sàgganee ngay enjoy jëkkëri jàmbur what the yow wéeroo te ngaa soxot te naa fekk te xamee jikkoy xaj ndax jëkkër jooju bu doon sa jëkkër ba pare di di di la héeg yow fekk keneen nga du la neex ngay def loo sa moromi jigéen dëkk ci loolu ay xat wala di ko def ak different different jëkkëti jàmbur xaw bàjjo nga yaa ci ñi ci problème yi askan bi nga bokk ñun ñëpp suñ defoon suñ bopp nit góor ñu caga ñi te wéeg ñi di leen seetaan duñ nangoo nekk ak ñoom duñ nangu ñu xéeg ñu nu konoon danañ faju ji seen feebaram ndof bi le waaye bu ñëwee ñi di la xéeg di la jëndal ay këpp di la jëndal xeesal di la may xaalis di la xéeg aka jos nekk ak yow rek ci ngelaw bala maa dee ñu ne fañ lay takk ne xaar ba takk la ma lay takk tax na ma di ma di la xéeg te ñoom ñu bëri suñ laxee xee fañuy takkit fañ lay takkit fañuy te bula la bula bu la xaduna euh, naqat wala xaduna tax nga def yenn yi bi ko soo ko defee nga koy réccu te askan bi dañ soxor fañ lay nax góor ñu bari nax la nax la nax la ba jot la ba pare toog di la jëw di yàq sa der duñ wax nag liñ wax ba jot la de duñ wax nag gémmiñ pilee ba jot la te fañ lay nax façon ngi nax bu ne la def nit uh askan bi rek façon ngi nax bu ne la ñuy def nit te suñ paree nag bala maa dee rek góori askan bi di di di jëw jigéen buñ tëdd mais ni ñoom ñoo baax ñoom su jigéen ñoom suñ baaxoon danañ tëdd ak jigéen boobu su fekkee jigéen bi dafa bon ba tax mu nangoo tëdd ak bi ko yow xaj nga kenn warta nangoo tëdd ak yow bi bon na ba tax mu nangu léegi yow xaj bi yow soo bonutoon danga danga danga danga danga dem si jigéen boobu allo yow xaj bi soo bonutoon danga dem si jigéen boobu when you are smart and and independent it is difficult to get the right man in our community. Yeah, xëy sweet I'm telling you xawum sweet sorry but yàlla baax na ye fa lëndëm léegi guys xaaral ma dem bugguma taal lamp may dem yeah noonu la soo sumaatee ci askan bi trait nga góor yi bari fañ lay ragal surtout góor ñu bon ñi parce que xam nañ ne doo nangu seen jikko ji léegi ñaari façon yu góor ñoo ñëw si yow soo sumaatee ci askan bi ñaar góor nga xam ne dafa sumaat comme yow te hut jabar ju baax nga taseeg moom xam saas ak góor nga xam ne xóor na ko du mën a dem ak yow because of sa jikko ji du kon du nangu jikkoom ji waaye moom fay ñëw rek hut xam lu mu bugg dem dafa koy xam ne kii jikkoom ji kii du jël nonsense kii su ma waree sëy ak moom bàyyi foo ma nekk ku baax bàyyi foo ma wecc suma jikko ji waaye nag du nangoo wecc du parewut a wecc sax de ñëwut pour mu wecc parce que nit kenn matut jigéen bu sa yeeg yow lu lu lu jigéen ji sumaar sumaar fu mu jaar mu wecc yéen yi fu mu jaar yow nga ne ko bi nangam nangam moom te mu la nangam ngeen mu wecci nga wecc yi noonu ngeen xànd sëy noonu la kii fay wecc kii wecc ngeen xànd ye léegi waaye yow booy ñëw te ñëwoo mindset yi wecci ngaa ñëw mindset yi xaaral ma ñëw play game rek ba xam lu ma soxla because kii du mën a dem ak moom because doomu adama njaay li gën a yomb mooy nga wut ku xànd ak yow dan nga wecc moo waral nit buy def lu mu watade boo waxee mu ne yaa may jooje ngaa bon dem wuti ñeneen ñu bon ni moom because it's it's it's easy pour doomu Adama Njaay moom mu xam nit ku mel ni moom wala kuy nangu moom nu mu mel dan mu wecci hànd ci feneen fu baax fi te boo xamoon xarit mm, ta fekk yow yaa ngi mel ni man for exemple doo yënga sa yaram bi doo bugg lekk doo yënga sa yaram tayal ah, nga xam choice pour xam ñaari xarit ñooy la xarit bi de moo yow xam xarit bi nag moom soo ko xamee ngay jóg suba su ne dem dawi def nangam def nangam def nangam xarit bi a moom soo ko xamee comme sa jikko yi ni nga mel noonu la mel sa mind bi straight away dafa wax ne wu nañ jël kii kii suñ ko jëlee danañ dee te fekk kii moo baax si yow si soo doomu aadama njaay noonu la saa woo xamee ñaari choice rek bu gën a yomb bi ngay jël seetlu ko te bu gën yomb bi baaxul si yow te lu si bëri bu gën a yomb bi rek day rafet baax mel ni lu xala baax daal waaye yow soo muusul doo xool si biir ba xam ne bi baaxul si man yaa soo xaaral ma ñoo dem guys góor yi daal ami waa déedéet xam ñu baax ba tey you know bul gi up but man dafa nekkee dama dee def vidéo you know xat yi yëpp you know pour wax suñu askan bi seen problème surtout sëy yu bon yi because sëy yu bon yi man dundu naa ko mag xam mag yi ko dund yaay rakk yaay mag wuu ñun ñëpp ku ko dundut sa mbokk yëpp a ngi koy dund ku ko sa yaay dundu yow ak sa mag yëpp a koy dund wala sa mag yi wala sa xarit yi wala so dafa bëri ba jéggi dayoo sëy yu bon yi te saa woo ko seetee rek fukk yi yëpp boo ko seetee juróom-ñett yi yëpp boog si góor yi pour jógee kon ñaari mooy jógee si jigéen ñi ku ko loolu moom ku ko weddi ngay fen day ku ko weddi suñu askari Gambie Sénégal ku ko weddi ngay fen exactly looloo tax ma di si focus du ne man maa bon wala maa xamee métti torop wala maa bañ góor nangam I love góor I love sëy I love suñu askan bi torop maa jos yéene suñu askan bi suma doom yi ñu nekk ci askan bi xam ci jabar ak jëkkër seen doom yi sëy ak suma doom yi sax yénoo ñun ñëpp ñu xam jàmm te xale yi si ñun lañ war a jàngee loolu sëy yu baax yooyu si ñun lañ koy jàngee ñun tam ñun ñu nekk ku nekk sëy bu bon wecci daf dee mën a xam may ñaan wecci ku ku bugg a sëyaat sëy bu baax ba baraw bi nga jógee loolu rek a tax may wax bon it's not like comme nit ñi nuñ koy defee mais ni man maa xiit wala maa bañ sëy nit ñu bon ñi loolu la ñuy wax de surtout góor ñu bon ñi jeeg gi boo leen toppee doo sëy maasi amee wala fii di xas goon ñi rek moo tax amul jëkkër sëy na ñaata yoon fa ñuy fende soxot ta bon ñoo la gën a xam ne li may wax yëpp ku a sëy ta mën xam sëy bu baax moo koy wax ñoo la gën a xam ne sëy yi ma jaar noonu di ma nekkee xale sëy yi ma warutoon a jaar la ak yeneen sëy yi ma bitiree par exemple lu ma la wax nii si kii waxuma la yëpp sax waaye xoolal loolu ndax mën ngaa sëy ak borom koy sëyal yow nga ne bitim réew moom mu ne fële ak jabaram di jox jabaram téléphone am mu di waxtaan ak yow naan la fàtte nga ba moo lay def nangam ak namm naa la pour def la nangam mooy ne jëkkatam fa koy wax lam lay def mooy ne jëkkat ja faalewul la respectul la fay def jabar ja rek di def di gàngob ni ay drogue di la di la takk pour use la pour tukki oo samti xalaat leen loo rek ah boo tasee ñu di la xas ku mën a tee xóolu borom afta mënatumaa wax ak moom mbooleem lu koy bind maa ngi xalaat ne jigi jabar ji laay waxal di ko laaj ndax yow laay waxal wala sa jabar te loolu sax daf dee dafay indi beneen problème tam xanaa gëmoo ma man ngay waxal ah ak ah, jos mënu ma woon a compatible daal ah dafa ruslu bugguma wax yëpp bugguma ngeen fa ne man su ma ni takkee lu xew ma ñëw di wax dofu ma man su ma sëy yi nekkuma di leen nettali soo gisee ma di leen wax ma sëy sëy yi ma jaar ma nekkee xale sëy yooyu waru waru fa xam te du man kenn maa jaar ñu bëri jaar ci sëy yi waratu na xam bu nekkee bu nekkee xale ma di leen waxal yu noonu métier yi ma fa dund <clears throat> because time xale laa sëy yow is not is not even a sëy but not right now yàlla tere traité kon may dugg si sëy ñëw xam problème di leen tere bi you know kaw ak suuf yëpp ak nit ki nu mu tudd ak dëkk ak details yëpp mais ni ko def xanaa mooy ne kenn du ma takkaat <clears throat> ak di jàngal gune yi ñu def loolu gune yi suñ koy def kenn du leen takk so neexuma di jàngale loolu ok waaye dafa nekk ne suma story bi man book sax laa koy def incha allah ba tey maa ngi wut rayta ku xam rayta bu baax na moo xar ko maa ngi bind bot su ma xamee rayta mu may gënal daal xëy na mu jox ma advice wala mu dimbale ma yeah la because ma story dafa jéggi dayo moo tax but it's not like man xaw ma sekkare wala nangam non naa sekkare fuuf la kon nit ñi may wax seen sekkare dama dem di ko wax laajal nit ñi ma xam it's not xaw ma sekkare di just ma du jël nonsense mm-hmm. loolu rek la just dama open minded tamit yenn yi askan bi di gisee ne nañ ko secret si man loo war ta nekk secret daf ñuy toroxa waaye xam na yenn yi askan bi di wax lool moo war a nekk secret maanaam waxi laalante yu ñaaw yu bon yi ni ay caga yu dof maanaam waxi saaga ndey yu bon yee génnee audio génnee secret nit ñu bon yi wax history nit depuis juróom-ñaari maamam yëpp nga wax ko jox bi ko jotee nga ak moom wala nangam si man loolu la askan yi war a ba loolu mooy secret you know stupid stuff yi askan wi def ni but yee ngeen xendu jàmm yeah guys xama kii lu mu bind bi laa xaw ma lan ok maa ngi dem guys ba suba yeah guys insha allah fo lëndëm sax léegi ba suba guys <laughs> bu kenn give up ya ñu jàpp si yàlla rek ko xamul jëkkër bul give ko xamul jabar bul give ne am na jigéen ñu sikk ci askan bi tam góor gu leen topp du am jabar ya bu kenn give up waroo dem de damay dem dafa lëndëm sax pare just dama war a dem ya ñëw moom bu yàgg dama leen bëggoon a woon léegi so bu kenn give up ok guys ku jëkkër bul gi up ku jabar bul give up fonkal sa bopp loof sa bopp protect sa bopp te keep sa bopp bul joxe sa bopp soo xamul jëkkër bul joxe sa bopp soo xamul jabar bul joxe sa bopp téyel sa bopp julli ñaan ok yàlla indi la ku baax foo toll rek nga julli ñaan ni ko dof foo toll rek nga julli ñaan yeah di julli sax su sa may nga ñaan pour yàlla indi la ku baax te dëggu ko xam ne da ngeen mën a dund de ko ñaande comme ku dof yàlla indi la ko baax te dëggu te ngeen buggante yàlla indi la ko baax te dëggu te ngeen buggante te ngeen dund ba xëy màggat bu leen am problème de ko ñaan kom ku dof foo tollu dee ko wax foo tollu dee ko ñaan foo tollu de ko wax bu xeeb sa bopp ñaan israel ya even tubaab yi xamul yàlla sax dañ dee def lu tudd manifest manifestation xamul lañ koy waxee maanaam suñ buggee dara fu fuñ toll fañ koy wax rek naaxam xam lii xam naa lii lii laa bëgg a xam naa lii naa xam lii xam naa lii xam rek loolu dañ ko dee ñëw xam ba gars di ko jàngal ni ñi laaj ko nit ñi am na ñu bari ñu xam loolu soo dee ñaan bul xeeb ñaan mm-hmm. soo xamee sawaajur mu ngi dund mu ñaanal la su fekkee nekk fi su magam mu ngi dund rakkam mu ngi dund ku mbokk ak ndey mu ñaanal la wala yow soo xamee mag wala rakk wala ay xale yu ndaw yu xamul dara yu seen nga bëggal leen jox leen dara lu leen nee ñu ñaanal la hmm? defal loolu incha allah yàlla baax na yàlla may ñun ñëpp ku xamul jëkkër wala jabar yàlla may la ku baax nga muñ nga peeseen nga xaar bul yàkkamti hmm? kuy sëy sa sëy bi su fekkee ne xam na jàmm yàlla na jàmm ji continuer su fekkee dafa sikki sàkka yàlla ngeen wecceeku yéen ñaar yëpp kenn ki su wecceekoo tamit du tax mu dox hmm? waaye kenn ki mu war a njëkk a wecceeku ndaxante keneen ki incha allah ngeen wecceeku yàlla may sëy bi barke ku xamul doom yàlla may na doom yu barke boo ko xamul tamit mun ngaa adopt wala nga def leneen te xam ne xam na ñeneen yoo xam doom te duñ nelaw guddi bi ko sax doom jooj te xamoo soo xamoon doom ban façon doom ngay xam ye ñàkk xam doom a nekk nit xam doom doom ja du dégg taxut a nekk terewut a nekk nit ñàkk xam doom terewut a nekk nit xam doom doom yi déggut a nekk nit moom moo doom yi nga leen a jur rek moom moo leen ngay taraay rek def nga li la war ok seetaan leen jos yëpp terewut a nekk nit ok def loo wat a def mistake terewut a nekk nit ngay jàng si mistake boobu yar sa bopp continue focus bul give up lu doom Adama Njaay mistake bu njëriñ mooy suñ defee luñ watare wala dugg si luñ wata dugg fa ñuy rus tiit give up ne ah, xas naa ba yàqu xas naa ba dugg xamee nañ ma lii already no génnal si lool nga focus nga xam nga yow yaay kan nit ñi foog ne xam nañ la xamuñ la fañ na gis nga def lii rek ñu oh nii la mel wala oh nanga déedéet xamuñ la kenn melut nen na doom Adama Njaay melut nen na aleen <laughs> ah, nu ma leen demee léegi <laughs> doomu Adama Njaay melut neen <laughs> doomu Adama Njaay nu ko neex lay mel so ndànk ndànk nga développe jikko jikko ju baax gisoo léegi maa ngi miin si exercice bi tey nu ma bi sax maa ngi ne ah waroon naa exercice fi ne nii suba ak jàmm su taw fa jar nga seen may tëb doomu Adama Njaay lu mu def fa koy def ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk bul give lu baax ndànk ndànk ndànk ndànk loo dugg loo warta na dugg loo sa yàgg-yàgg génn si ndànk-ndànk di génn ndànk-ndànk hmm? sooy def lu warta de bul comfortable si biir loolu naan ah nit kenn matul wala nga jos comfortable si rek man nii laa mel man lii dee def you know kenn melut nenn surtout lu baaxul nga naan man nii laa mel yow yaa sa ennemi bopp meloo noonu yaa ko def sa bopp génnee ci sa bopp carrément maa ngi si yow de su ma bëri wax gi de mu sa digg nangam taan yu wal kaane su mokkee ma sotti ko ci ñu robi yaa fa toppoon ku dem kóog nga nit lu tax ma balaak sa góor yaa gu tuuti gi ni aadamoo muñ du ma sa morom naa la ko nag fii góor gu fi xamee góor yaa gu tuuti fañ lay suuli waaye duma la jël man Ami Jóob dégg ko seen góor yaa yu tuuti yi ni seen waa yuñ bu leen ma taxawaa du ma morom <laughs> barki sala at ya ngeen a reeb billaahi su ngeen ma taxee wax da ngeen ko rëccu yéen niti askan bii def leen seen bopp nit <laughs> guys fa am góor ñu bëri ñu ma mere ñoo xam ne ma topp te seen góor yaay mel ni ay sinwaa yu si butu tax ma gedd leen man maay sëy ak sinwaa buñ jaale moos balaa caag ma jël sinwaa wala tubaab mu di ma defaral café may naan what the baax na maa ngi dem guys xendu leen jàmm dégg nga am sorry guys am so sorry ok kii fa ma wax loo moo tax xàmmee naa ko ne patt mu di ma ta tappaas rek boobu ba tey nit ñi gis nañ ko duggoon na ci beneen vidéo bi ma doon def di wax baax na waxoon naa ko ne def na def boppam nit mu ta taxalal làmp taxaluma làmp may dem <laughs> su ma taxalee làmp du ma dem <laughs> dégg ko <laughs> maa ngi dem def leen seen boppu nit yéen góor ñi ma topp ma gedd leen yëpp xam ngeen li tax ma gedd leen baax na ñenn ñi seen jikko ju bon ji ak ni ñuy waxee ni ñuy defee tax ma ragal ñenn ñi seen góor yaa ngi ni sinwaa bu sibbutu baax na def ngi leen seen boppu nit baax na su ngeen ko defu danaa wax askan li tax ma baleen de waa baax na ñëw leen ci suma vidéo yi di ma ñaawal fii ngeen may fekk ngeen di bon xendu leen jàmm gaay maa ngay dem mu <laughs> ngay ree xam na boppam <laughs> waa lii yëpp boo defar sa bopp ni doo ko dégg ne jigéen ñi dégg nañ la ji xaw ma na xam nga jabaram jigéen joo fi topp mu lànk very xanaa nga cey sa tur bi <laughs> mooy dinaa dee fi ne jigéen joo topp mu lànk xam ne seen waxa bu sibbutu nga xanaa nga ceeñ sa tut bi tëj sa tiktok bi kaste ko wuti beneen lii yëpp yaa ko indee sa bopp nag di ma xas boobu ba tey ma noppi di la seetaan defal suma beneen vidéo nga dugg di ma tooñ wax naa la ko nag du seen morom góor gu ma fi banam romb yi wéy jigéen ñi bëri nañ wuti keneen baax na waaye ndikk suma ay vidéo di ma tooñ danaa wax askan wi tax ma bala du ngeen a reeb waa acca leen maa ngay dem xendu leen jàmm jëluma leen may dem bye guys jërë ngeen jëf waay guys yeah <laughs> bye guys <laughs>